ndax lislaam moom képp ku képp koo xamante ne euh, yaa ngi wax asadu àla ilaha illa asadu muhammadu rasulullah rek loo ci mën def rek mu ngi mel ni defoo dara ndax ñi nga xam ne ñoo ko sos ñoom def nañu seen devoir boo dem nañu ñu fa ne dañ dañuy topp coow bi rek di defar wala ñu di fekki maanaam lii nga xam ne mooy moo ñëw itam wax dëgg yàlla dafa nekk xiwal boo xamante ne sax ñun ñi nga xam ne ñu ko sax dañ def ñoo bett du ñu ko dabboo itam ndax yàlla def ko jaaree suñu rek ci suñu loxo mais ci askan wi mu tam itam mérité woon nañ ko ñoom rafet lañ ko te yeewoo nañ ko te ñu nga xam ne dañ ñi xam ne ñoo ko indi teg ko seen loxo nag dañuy arrière tàll si tàll leen seen loxo di di di sakku seenu ñaan ñi nga xam ne te boo joxe mbir mi itam mu nekk jullit ne ku nekk ku baax ku tabe ku laabiir ku gëm Afrique su waxat surtout Sénégal gëm leen lool joxe léppam moom itam di ñaan di sakku ñaan. ci waajuram moom itam di ñaan askanu Sénégal yëpp ñu ñaanal ko te yàlla tax waaw di ko def lu baax a baax douze tonnes la moo ñëw douze tonnes maanaam douze tonnes yi ay kaamir alxuraan la ak euh, beneen bi nga xam ne moo ci mooy amayata sandoo na amayata nag ndaw ji nga xam ne ñoo ñoo ngi commencé nag ñoom dañ ko ñoo ko yite woo waaw ñaari Égypte man lépp li nga xam li ma xam te moom moo ma tere li ma ñor mooy diine bi su ma sañoon chaque jour ma indi loo xam ne li moo moo li nga xam ne moo fi ñëw te lu ëpp li sax mënuñu am alxuraan mënuñu am lu ko ëpp xanaa kay di dolli rek di dolli rek waaw te te di ñaan askan wi itam ñi nga xam ne surtout ndaw ñi li ngeen li ngeen doon po question ngeen doon posé tout tout à l'heure sëriñ bi maanaam fii nga xam ne fi lañu fekk baax moom loolu bu ne ko sa xalaat fii suñu gox bi la ñun xamuñu loolu béy ak njàng rek la ñu xam